nun tool yi day mel ni laata mbooloo bi dëgg-dëgg di egsi sax tool yi jeex na kon eh, dañu cee boole rek ngir dimbali ñu loolu nag ñun noo ko war a xam sunu cant ci moom daal maa ngi koy biral àddina te fas yéene namm Pastef yi defaraat toogaay te fas yéene topp ci moom di ko déglu lu mu wax loola la ñuy def lum nu digal ca loola la ñuy ne joxaat nañ ko sunu bopp di yeesal lépp loo xam ne doxoon na sunu digg moom doxoon na sunu digg sëriñ saaliw ñu ngi koy yeesal ci moom wax dëgg yàlla cant googu laa ne woon ndax li ëpp ci wax ji Serigne Khadim wax na ko moom ak sama rakk yi fi teew maa ngi leen di beral ak cant ginnaaw bu ma sante taalibe yi maa ngi leen di sant cant gu wér di leen sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee moom it waaye amul fu mu yem ndax booba ba tey nu ko àndee ak nun ñu ngi fii te kenn mënu leen ci tool di di di sant bokk taalibe yi murit yëpp nag waaw sama sama kàddu yemul rek ci njaboot gi waaye daa yem ci ci bokki taalibe yi murit yëpp ci jullit yëpp ndax fii am na ay ñoo xam ne du ñu ay murit sax ñu fi teew ndax sëriñ bee tol noonu mbirum sëriñ bee tol noonu ba na maa ngi sant lool ci ci ci ci yebal boobu sëriñ Cheikh yebal sëriñ Abo mu ñëw fii ngir yeewi ñu te may profiter ci euh, tool yi di di di di euh, ñuy amal Madinatu Salaam waaw loolu loolu loolu maa ngi koy maa ngi ko ciy maa ngi ko ciy sofaale di yeesal ndigal la nga xam ni ma nga jógewoon ca sunu sang ba Serigne Saliou Mbacké mu tedd ma joxoon ko ko ndigal loolu maa ngi profité fii ci tool yi di yëgal àddina di yëgal julit yi gàmm gu ñuy amal ca Madinatu Salaam ca noonee ko sëriñ Saliou digle woon maa ngi koy yëgal bokki julit yi di ko yëgal bokki cantaakoon yi maa ngi bëgg lool nag di yeesal samay ngërëm ak samay cant ci mbooloo mi